kon boog yàlla nañu yàlla may ñuy julli te bu ñu jullee itam mu nekk julli boo xam ne moo tax dama bëgg ma bëstal ko ba nga xam ne damay ñëw directement rek si julli bi hmm. oustaz euh, julli euh, li ma siy wax mooy dañ dama bëgg tey ñu indi li nga xam ne lii mooy euh, ubbi gi ba tëj bi ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa doon defee foofu oustaz li tax ma la siy jox ma bëgg nga def ci taaliq tuuti hmm. mooy julli boobu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma waxoon dafa am lu ñuy wax ay euh, arkaan lan mooy arkaan mhm. ma bëgg dama bëgg nga leeralal ñu ñett arkaan ak euh, sunna yi lan mooy sunna lan mooy waajibaat ak lan mooy mustahabaat ak lan mooy makruhaat pour ñu mën a xam suñuy julli fuñ ci tollu fan la mhm. ndax ñun dañoo nekk ci waajibaat yi bi ma nee allahu akbar walla fii ma toll damaa toll ci sunan sunan yi wala fii ma toll lii mustahabaat la ci biir julli gi wala lii makruhaat la si julli gi soo ma mayee ñeent yooyu ba pare nag ma mën a indi julli gi pour que xam nga tey su ma duggee oto jëm Thiès oustaz neex na bu ñu bu ma eggee Rufisque ma xam ne fii Rufisque la jam ñaajo su ma eggee jam ñaajo ma xam ne jam ñaajo la su ma eggee Sébikotane ma xam ne Sébikotane laa egg su ma eggee Pout ba bu may egg Thiès ba jàdd jëm Tiwaawan ma xam fan laay tegu loolu nag moo tax ma bëggoon julli gi bu ñu nee allahu akbar nga xam ñaar yii ndax man lii ma bàyyi daa jaral sujuudu sahwi sujuudu sahwi wala jaralu ko loolu ci laa bëgg ñëw man mais dama bëgg nga waxal ma ñi nga xam ne ñooy seetaan ba bu ma nee ci rukku yi laay wax wala ci mustahabaat yi la nekk wala ci sunan yi